mooy suñuy opération pré hivernale moom mooy pareel suñuy ouvrage euh, mbooleem euh, suñuy station ak suñu réseau mooy suñuy tuyau ak ñoom seen fii ndox euh, taw mi di jaar pareel leen pour que ñu mën a dëkku nawet bi ñu séntu donc pare bi mu ngi consiste à comme ni ñu ko doon defee at yu ne curé moom mooy dindi suuf yi nga xam ne dugg na jot nañoo dugg si suñu réseau dindi tamit suuf mi jot a dugg si suñuy station ak yeneen euh, débris yu mel ne ay mbalit salté yoo xam ne ñoo si doon ànd euh, yenn yi ndoxu taw mi moo koy indi yenn yi tamit nit ñoo ko si nit ñi ñoo ko si dugal ñu génn yooyu yëpp euh, pour que mu bala bañ a gàllankoor écoulement ndox mi. donc tolluwaayu réseau bi fi mu nee nii commencé nañu ah puisque il faut voir que région Sénégal yëpp lañ koy defee commencé nañu Fatick Kaolack. Euh, ñu ngi si région de Diourbel depuis ëpp na léegi benn semaine parce que ñu ngi commencé par Diourbel dëkk bi si boppam ak Bambey euh, ñu curé Touba tey jii ñu ngi woon si Mbacké euh, ak partie station bi moom mooy station yi ñuy curé tey jii si Touba. Mhm. Mm. Euh, donc lu ñu seetlu daal moom mooy euh, bëri na suuf bëri na suuf euh, itam di nga si di nga si mën a jàngat léeg comportement nit ñi mu ngi changé tuuti si exemple bi ma si joxe moom mooy boo xoolee Mbàkke daaw suuf suñu génnew woon si réseau bi ñiy jàkkaarloog réseau bi ñoo koy ñaanaat di ko sëkkee seen i biir kër waaye ren gi li ñu fa génnee si suuf suuf si ñuul la lu mu wane rek moom mooy ndoxu taw kese doxatul si réseau boobu Euh, donc euh, loolu rek muy feeñal ne nit ñi ñu ngi soppi ay jikku ñu ngi commencé di sotti si si réseau bi ay ndox yu dul ndoxu taw. Mhm. Euh, donc loolu si ñu seetloo ak ay ay ay déchets solides mu ngi am si yeneen réseau yi lu mel nu fii si Touba ak ñoom seen donc a Diourbel nit ñi ñu ngi yor ay comportement yoo xamante ni bon gënul noonu yëpp gënul si réseau bi waaye itam gënul si ñoom parce que réseau bi seen réseau la même bu ñu nee ay réseau ONAS ñoom lay njëriñ. donc bu ñu dee si defee loo xam ne da koy fatt wala loo xam ne dafay salteel ndox mi tilimal ndox mi euh, ba ndox mi di commencé xeeñ ñoom ñi dëkk moom ñoom ñoo koy njëkk a yëg euh, donc ñu ngi leen di lancer appel pour que ñu yore ay comportement yoo xam ne du agressé réseau bi euh, moom mooy ñu bañ si sotti ay mbalit ñu bañ si sotti ay ndox yu salte ñu bàyyi ndox mi taw bi rek di si di si dem am na yeneen réseau pour ay ndox yu salte donc si dëkk yu mel ni Diourbel ak ñoom seen. comme de celui de gis nañ si ay pneu Euh, gis nañ si ay xeer yu rëy yu tëmb si biir lool nag lu gën a bëri lu koy waral moom mooy ay oto yoo xamante ni dañuy taj ay dal euh, ni jàppaat ay xeer yu rey fàtte ko dal yooyu mu suruxu donc yooyu fekk nañ ko si euh, fekk nañ si ay mbuus ay saak mbuus yi nag moom mooy gën a bëri bon si yooyu am na si yoo xam ne ndox taw ñoo ko indi woon depuis daaw mais si si gën a bëri nit ñi ñëw ko yónni c'est vrai que loolu am na surtout si Touba mais depuis daaw ñoo ngi nekk en partenariat avec les autorités religieuses ah xalif bi depuis daaw xam nga ngeen xalif bi dafa joxe woon ndigal euh, nañu curé réseau bi taalibe yi jiituñu si yemul woon si loolu rek mais bokkoon na si liggéey boobu aussi débranché ñi nga xamante ni dañ see raccordé seen i fosse daaw defoon nañ si jéego bu rëy ren yi tamit liggéey nañu ak ñoom euh, donc dafa fekk rek ki ñu si àndaloon si liggéey bi Euh, waxtu bi dañoo nekk si yeneen liggéey moo tax bëgg si leen leen fii euh, waaye ba tey ñu ngi si loolu donc euh, ku ñu gis koo xam ne dafa raccordé ñu dindi ko donc ñu ngi si si démarche boobu